waa ñu ngi toog ak Max dernière partie bi ginnaaw bi mu ñu waxee tuuti si Balla Gaye 2 vraiment mu nekk mbër moo xam ne wax na jaar jaaram ak moom mais Balla Max ñu jëm si combat Ama Baldé Gris Bordeaux Gris la mën a am si eh, Ama Baldé. waa xam nga wane boppam rek ndax moom it soxla na ndam te mi ngi ci lu yàgg di daw. waaw mbër la moo xam ne waxoon naa am na lu mu doon aborder combat yi di ko ñàkk. Mhm. nit ñi dootuñ sawar ci combat. ñoom yi li amateur bëgg lay def lay xeex day bëre ndam nag yàlla moo koy joxe amateur mbër dina daan sax ñu mere la mbër dina daan ñu kontaan ci moom hmm. te giri du négocier ay combat négocier ay combat yow d'accord nga ci combat bu d'accord naa ci combat bu jaar yoon la jaar na lamb ñetti génération hmm. ngay bëreeg say mag hmm. bëreeg say morom bëreeg say rakk jaadu na est-ce que ba kii mun na yëngal ba ama Gris mun na yëngal ama ku mënul daan amul Gris yegg na au sommet kay ok ko mënul ko mënul yëngal mais dafa toog ay ati at bëriwul toog ay ati at daanuwul. non dama dama la tënkal li ci mën a xam. làmb ay génération la. waaw moom làmb moo leen boole xale yi dañ leen a fekki. waaw te ñoom bëri nañ seen biir ay yoon. Hmm. foog ñu bëri xale yi. Hmm. combat boobu daf cee bokk ci combat bi waaw yi war a mën a am la. Hmm. Euh, mag ñi daje xale ah, ñu tëj barrière yi. bu tar Ama loolu mun naa nekk ci biir ah, ah, ci biir combat bi. Ama musul négocier day attaqué rek foo taxaw mu fekk la combat la boo xamante ne rénkum dina bëri xeex dana bëri te sax combat bi yàgg. du kon combat boobu Gris Bordeaux du diriger. non li xam dañuy daje parce que ah Gris kenn du ko sëkkatal bu ko sëkkatalee dañuy daje dañuy xeex. Hmm. dañuy xeex Ama du xaar foo taxaw mu fekk la fa Ama musul bëri combat bu yomb ci carrière am yëpp. Hmm. waaw. bii da bii bii euh, bokk na ci war a gën a métti. non dana ndax dañuy xeex te dañuy daje. Ama du bàyyi di def mu di la seetaan. Hmm. boo ko sëkkatalee da ngeen di daje. daje de. daje. waaw. Mm-hmm. Gris lan la mën a am si Ama. déggoo li ma la wax wane boppam wane ne xanaa jëlul combat bi pour daanu Gris yabul ay supporter mm-hmm. bu ko leeroo te mënul daana Ama du ko jël. Mm-hmm. xalaat ne war na ci mën a am daal. bu si daanoo koy joxe bu daanoo day continuer may yeneen xale yi chance wala mu bëriwaat ak morom. est ce loolu waa Fass nañ ko nangu. muy nekk di daanoo rek man gi aajowul déggoo la. da ngay bëreeg say morom. waaw bëreeg say mag. bërek say rakk mhm. ndam kenn koy joxe muy suñu borom mën nga am ndam comme mën nga ñàkk mhm. mais giri mu ñàkkoon ci amaatu tax mu bàyyi làmb ci xanaa day dem ba ne mënatul mu bàyyi mhm. giri bu doon loolu yeneen combat yi nit ñi dañ ko seetaan dama ne giri day servir amateur yi amateur man nga daan sax mu mere la di négocier naan kii du bëre même day xeex day bëre moo waral combat bu ñu ko jox nit ñi dañuy dem ndax marché dañuy kontaan combat mag Gris Bordeaux ba demir euh, woog Balla Beye bu bëri woon coow la waaw ah? ah, kon jeex na mhm. moom day joxe li man yëpp mhm. day xeex day bëre lan war a yokk si combat bi yokk gën a yokkaat ay entraînement rek wane ne am naa place ci làmb ji mhm. waaw parce que loolu moo gën a tax amateur yi kontaan ci moom nag di xeex di bëre c'est bien boo mais ñu ngi bëgg moom it mu am ndam mais ndam dafa néewul ci loxoom mais li koy maye yëpp mi ngi kii maye suñu borom la. yow d'accord nga Ama Baldé lu mu jël Gris waroon xaar war a bëri couronne royale bàyyi loolu yëpp jël Gris Bordeaux. du lekk suuf. te dafa yor famille soutien de famille la. mun a toog quatre ans nga topp ci di daw te yor sa kër. Mhm. nga ne du lekkul suuf. lekkul suuf. dafa yor këram. Mhm. waaw. Mhm. foog mu bëri ji làmb di métier waaw kon foog mu bëri li ko règlement moom mu bëri su paree bëri jëngoot la. moo moo d'ailleurs loolu tax ñu dugal règlement boobu. dëgg la hmm. war na xeeb Gris. xeeb mukk xeeb Ama du xeeb benn mbër ku xeebul Papa ak ñi mu bëri ñëpp ba ngaa xeeb Gris. Hmm. mais xeebul benn mbër day def si li ko war rek. Hmm. Gris def si li ko war. naagu mënu ko jàpp. non boobu boobu ah gaw ma ko. ndax ku war a bëri ji combat royal combat bu ne ci digg bi di nga ko da nga ko rassuré. da nga ko rassuré.

mais combat bu métti lay doon. combat waaw Max ñu noonu di wuyu téléphone ñu bàyyi ko. waaw man de maa jël téléphone. waaw ñu Cheikh bi waaw. waaw. Max Ngok ndeysaan. déw ma maa ngi nii di ñëw nii. waaw naa ñëw waaw. Hmm, xam nga am. Hmm. Euh, Max. Hmm. ñi jël combat bi yóbbu ko mois de février. Ibrahima Diop février. baax na dat bi baax na dat bi baax na dat bi baax na dat bi baax na giri day dolli rek ama mi ngi ci yoon doon waajal moo doo xalaat xalaatoo ne à tout moment mën na bëri bu ko defee mois de juillet ak juin xëy na mu bëri ceeg Modou Lo su ma juumul am na site bu ma gis xaw ma dëgg la am déet ñu ne semaine bi wala bi ci topp xëy na Modou Lo dina dugal guérison waaw kon moo lay yoon ne combat la boo xamante ne nii ni lii xel naan yokk cere dolli ñeex dañuy continuer rek di xaar le jour ji que le meilleur gagne Gris Bordeaux Ama Boy Niang Balla Gaye ban moo daax ban moo la daaxal yëpp a neex combat fa neex amateur dañ leen servir day am xex day bari day am bari day am xex day am bari ku ci ne da ngay bëgg am ndam mais est-ce xam nga yaay ubi balu saison bi wa le 6 novembre ci mag ngi koy sor ya ngi koy sor yaa ngi koy baye xel bu baax combat bu compliqué combat la bu ñu bëgg lu bëgg di ñaan rek suñu borom ànd ak ñun mais est-ce xam nga ne sa mbeur mom comme dollar légui site site site dafa mel dollar la légui kon xamato dollar dollar duñ ko xëccu ah, ah dollar du galère ben yoon ah dollar du du ki te dañu xëccoo non seulement cadre am ci Siteu mbeur ñëpp hmm. la dañu wax sama mbeur mi rek yow sax sa mbeur la limi def état ko waron def deug la waaw ko mbeur ñëpp la lu li ma ko yor mais ci walu cadre sport sportivement Siteu gañetul de déedéet gañetul tegaleel ko ñaari defetam yow ya, kenn daxula jang bok ak ñi di waxantu yow ya, xam nga lepp hmm. musul tégalé ñaari defet hmm. Yang ngi dumber mbër tudd defet yu bari. musul tegale ay defet tudd ngay lima le ay kimil de defet yu mu tegale moom mën naa defet day ñoo am ndam. Hmm. kon kooku ba léegi mi ngi ci mi ngi ci terrain bi. mais kon Papa so mën na tegale defet de. ah non loolu moom da ngay dugg ci cadre suñu borom. mais ñun gëmuñu loolu. gëmu leen loolu. waaw hmm. loolu nag suñu borom rek xam. Hmm. mais ñu liñ gëm mooy dañuy daan Papa Sow wiite leneen te loolu rek lañ gëm. bu sita daanul Papa so na nga ne bu sita mënul daan Papa so gëmuñu loolu bu yóbboo bàyyi bëri wiite leneen waaw. ah mais Papa Sow adversaire de taille nga am. non werante wuñu loolu. mais seen parcours ñoom ñaar. waaw fiñ ñu toll. mais defet xam nga ne ci Siteu la gën a bon ka Papa Sow même boo yorutoon kenn donte Papa Sow day ñëw pour am ndam. mais est xam nga ne Papa Sow mooy mbër mi ëpp victoire ci arène 23 victoire la toogee. loolu xam naa ko moo tax mbër la mu ma naw ko am ful la ko am ful lay bëre. Hmm. waaw du fooyee làmb mais ñoo gën a doon xale bu ko bëggee benn war nañ ko bëgg fukk. waaw moo tax ma ne la. waaw xam nga da nga ne Papa du fooyee làmb. waaw kon Siteu am na problème de. non problème danañ ko respecté ah, max déggal mu ne problème bu euh, max problème bu sérieux nga am. non Siteu bu Papa Sow doonee problème ba tey koo nelaw. Ah. Siteu liñ koy jiñ doonu ko. phénomène bi ñu koy jiñ nekk non non non dama ne. Hmm. Siteu bu xalaatee. waaw ah. kon leneen kon xalaat Siteu réewewul doon roi des arènes. en kay loolu rek la bëgg. waaw te ñun am nañ boobu rek koo nag ku xalaat loolu yaa ngi xalaat daanu ci Papa loolu xalaatuñ ko donte defet yàllaa koy joxe. waaw mais liñ gëm mooy le 6 novembre incha dañuy génn ak ndam. Hmm. Hmm. ñaan nag suñu borom may na ko loolu rek la ñu gëm gëmuñu la rek ci loolu la ñuy xëy ci la ñuy gont. est jox na euh, Siteu jox na Papa Sow cër. bu baax day signature doo ci sama dépense Papa Sow ñëpp ko respecté ndax comportement xale bu yaru la. Hmm. waaw bu yaru la. Hmm. si commencé na entraînement yi. yàgg na yàgg na. yàgg na lool. Hmm. ba fondation ba jàllee. Ah. ca ca ca ca ca Grand Théâtre. waaw lañ takk dàll yi. waaw nekk ndax combat bi dafa jege. jege na de. Siteu nekk yaakaaru Lansar. Mhm. donc combat bu mu war réussir la. non parce que Lansar booy xool jamono yi mu ngi flanché lu bëree bare non flanché mu nekkoon nekkatu fa. non déggoo li ma wax loo mënti dégg. suñuy ah. victoire moo ëpp suñuy defee waaw te ñu ngi bokk ci ñuy am bés yu mag yi. waaw. bés yi amateurs yi di rêvé lamsaar ba mu juddoo yàggul mais mu ngi ciy bokk am na écrit yi juutu lamsaar ba léegi du ñu am sax ay événement ñun formé nañ ay mbër mhm. ñu am combat capital mu doon ay événement loolu yombul yi ba xam nga li ma la wax am naa wala <laughs> loolu nag moo am solo yi ci des ay détail la mais mais mais xam ah. nga uh-huh. Siteu moom mooy sa ambassadeur lamsaar mhm. donc mom dafa war di am ndam pour équilibre bi gëna a jóg. non dama la tax mën na la dafa jóge ci victoire xamna fa nga jëm dafa joggé ci victoire am défaite di wajalat combat. amul ay victoire tok ñeenti at bëréwul wa lool lool année blanche la lool mom bokku ci parcours mhm. <laughs> lool année blanche la wa xam nga li ma la fay bëri. Siteu mu ngi nek phénomène ba légui yow xam nga ko barki dem ni mu def combat bi avorté xam nga lool musul am ben mbeur rek du 22000 places. 18 mbeur ya ci top sax mayoo leen dara. Mhm. wala 19 ba. waaw tamit loolu yombul. loolu jógewul kaa ji jàmmagan de. Hmm. ci Sénégal la jóge hmm. lu ko yàlla defal la. Papa gëm na ne mun na terrasser si ah non Papa Sow ku dul sax euh, teewoo ko nelaw Papa Sow jàmbaar la. Hmm. li mu def ci làmb yëpp. Papa Sow dafa ñeme te ko am fulla la mais liñ gëm mooy. le 6 novembre. waaw ah. non Siteu waajal Papa Sow lañ gëm. waaw ñun loolu lañ gëm dañuy ñaan nag suñu borom defal na ko. photographe toog photo waaw loolu daal lañ bëgg hmm. ndax xalaat nañ suñ borom nañu ko defal hmm. ndax jaam bu jaa bu ñaanee sañ naa yaakaar hmm. ah mer ngeen fanaanoon doon eh, du affaire mer sax dañoo bëgg combat bi rek c'était doful c'était doful doful doful mais sas bi ngeen ko sas mbaa du nekk pression kon bu yóbbu waaye ku xalaat doon roi des arènes yaa ngi xalaat daanu ci Papa Sow xam xam du yéene ngi nii bu daanoo sax ñu naan non non combat yu bëri da koo échec su waree yéeg dañ ko demeewul loolu tegalewul ay defet am yoo xam ne xamuñ ci li ñuy wax dara yor si te yomb na non yomb na trop xale bu kore la li fëkk nit ñi fëkk ko ñaar mooy sonal yenn ñi muy jigéen ak xaalis si te gore na ci dëgg la ñaar yooyu bu amutoon xëy na góor a góor du xuloo te si te gore na ci dëgg la rëg-rëg Sa Thiès fooy féete waaw non combat la bu doy waar mais Iba du ma analyser lépp baal ma yem ci site bi ñu tàggoo ba beneen yoon dëgg la jërëjëf <laughs> mais ñu ngi lay kontaane Iba Max daw maa yow bu ñu Max nee na rek rek sa Thiès bi combat la combat dinañ ci waxtaanaat mais la nga bëgg dinañ ci waxtaanaat mais bu ko toppee maa yow non non non non site dernier mot site tey duma la bàyyi bàyyal dara dernier mot site ñi ngi waajal waaw di ñaan yàlla ànd ak ñun uh-huh. le 6 novembre dëgg la di leen di la joxaat yow yeneen i rendez-vous jërëjëf suma frère nga suma xarit nga di sama mbokk taalibe sunu waxtaan bi waxtu xajal si une heure de temps <laughs> jërëjëf Max merci